moji tu fandar don doon fagandeku nga maam Ceerno borom daaru jàmbaarange a'udzu billahi minas asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi sabir diwani wa tamkin mbok julli di mbok talibi ginaaw ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci saydul wujur sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax a baax sunu yaakaari teygal ak Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax ci seen émission bu tedd bii di at dina ji di baaxoo ñëw di xamle kilifa yi ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh mu taxaa ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér nuyu Sëriñ Abdoulahi yàllay buur xalifa borom Cham ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñu ngi nuyu bu baax a baax mboolem kilifay diine yëpp ak kilifay aada yi fu ñu mën a nekk ci Sénégal ak ci bitim réew. di nuyu suñu wala réew bopp Serigne Medoune Seye borom tawfeex di ko ñaanu suñu borom taxawu ko moom it tawféex ak taysir mbokk yi niñ ko baaxoo defee spécial ci këri diine yi ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ baaxoo di xamle di leen xamal nit ñi ngir ñu mën a jàng ci seenu dund ba mën a xam ñoom ñooy ñan kon tey ñu dalal ñu wara waxtane kenn ci kilifa yu tedd yoyu wara muy mam tierno borom derak Moxti di rak ci Serigne Touba bokk ak Serigne bi wenn wajuru gor ñu dalal ci nak borom xam-xam bo xam ñepp ma sa nañ xam ko ku ko xamul ci jëm mit xam ko ci écran télévision yu bari bari muy xamle Serigne Touba ak njabotam muy Serigne saliw sek alcorane Serigne saliw ñu ngi leen nuyu. awuusu billahi minash shaitanir rajim وبمن مسعود وجاه ابن سلام خن البلا والدرحين وكلام محمد سيد الكونين والسخلين والفريخين من حرب ومن هجم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بكي السلام عليكم ورحمه الله انا بنو سانت يالله جيلو جالنت بي ني سانت شيخ احمد بامبا دي نانا سي منتخب ياغ في لول تيور نانا مبولم جيلو ني سيرين صالح نغ لي زيار باخ باخ ديم لول اندك يو تي في di nuyu ñep bàyyiwuñ kenn inshallah ngi siyaar bu baax a baax. jërëjëf Serigne Saliou ci nuyu bu dal bu tedd boobu kon nañu daal di tàbbi ci waxtaan rek rek eh, sun première question moy kan moy borom darul Mouhty kan mom buñ ko boñu ko mënon xamal ñom kenn du leen xam waye li nga mën liñ mëna xam ci mom moy kan ak am ciosanam ku ñangam nga leral ñu ci jëmm ju tedd jooju di yalla yàlla bismillah jere jeuf Serigne salih Euh, dëgg la de ñoom ñooñ de xam leen du yomb mm-hmm. mi ngi mel ni nga bëggoon dem jeexal géej gi ci ca yor ab kopp du yomb mm-hmm. waaye boo ci tànqee mm-hmm. koo wax ni ko ci laa ko tànqee ca mu des lu bari dina ko gëm ñoom noonu la nu mel waaye mu bokk ci góor yàlla yi yàlla dana wax ci alxuraan wax ni lañ digge woon ak yàlla ba tey bàyyiwunu ko minal mu'minina rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badaloo tabdila bàyyiwuñu lañ diggoon ak xam nga ko fi mës a ñëw ci àdduna tamit yàlla dana wutal mbokk yu baax yu mu lay boole. ndax Mariama baaxagu ay mbokkam baax moo waral keroog ba mu ñëwee ànd ak doom ja mu yoon ca Isa ay mbokkam dañ ne ko da ngaa def erreur. sa yaay ak sa baay niñ baax ngay am doom ja amul baay. maakaana aboo ki imra asawin wa maakaanatu umiki baqiya kon ndeke ay waajur yu baax dañ ci seen doom yu baax waaye nit fu fu baaxut moom kenn du fa séntu lu baax nit bu ay mbokkam baaxee bu góor góorgóorlu rek tuuti yàlla da koy defal mu baax ndax deret jaay tax waaye ñaari xale jirim yooyu baaxagu seeni maam baax na wala seen baay moo taxan ba Seydina Xudar sula leen wurus ba ca sàkket wa sulli wurus ba ca sàkket wa wa amal jidaaru fa kaana li xulaamen yetiimani fil madina mhm. wa kaana taxtu kanzun lahuma wa kaana abuhuma zaalihan kon baax lu am solo la ak baaxi mbokk maam Cerno nag néeg bi nga xam ne bokk na ci néeg yi gën a riis ci la bokk muy askanu Mbàkke ak askanu Kokki te bariwaa a kilifa yoo xam ci réew mi faw dañu fay bokk dañuy bokk ci ndaam ba pare bokk ci askanu maam maaram muy Mbàkke moom nag maam Cerno maamam ma nga jugoon waalo ñu koy wax Demba mu jur mujjin maar Samba Ayib Samba Ayib Matar Ndumbe hmm. Matar Ndumbe Modou Fa Xujja Njaga Isa Faati Isa Jóob mooy waajuram bu jigéen ba tey moo ko sëñ Tubaa ñu bokk benn baay moom mam Thierno seigne Mor seli moy sen bay seigne Mor Anta mam Bala aisha mi tiatu mam maram mam maram sen mam waye ñom ñaar ba tamit ño bokkat sen ñaari ndey ño bokk ben men mam kon mam Thierno ah, mo ko sëñ Tuubaa ay doomi bay lañu ba pare ay doomi ndey lañu ndax Ahmadu soxna bu sa mi moy doy mam maram wax nañu ni mboolem njabootu mam maram gi mo ci gëna ragal yalla hmm bu mu san déggu nopp day do bay reuy moo leen meññ ñoom ñaar ndax Ahmadou Soxna Boussa moo jur ab saloobe muy waajur Faati Isa maam Thierno. Ahmadou Soxna Boussa ba tey may waajuru Asta Waalo mi jur Soxna Jaara sëriñ Touba Soxna Waalo Soxna Jaara sëriñ tubaa ak sëñ Maam Mor Jaara kon seen maam mi ngi noonu muy Ahmadou Soxna Boussa mu doon koo xam ne tamit bi mu ganee jamono nga gane jamono ca Poroxaan amee faral di wax ni maam Thierno Afrique boo ko limee. bari na dëkk yu bari wala ci Sénégal dinga nga di nga ko fekk jeex itam mhm. ndax boo demee Saalum fa la gën a jamono muy Poroxaan waaye ñoo ngi ko ngéntee Njaabacounda ca Gàmbi mhm. Gàmbi lañ ko ngéntee ndax bis bi mu gën a jamono boobu la la la ñuy toj Bawos Kuto maa ba jox ba di xeex tubaab yi mhm. guddi googu la gën a jamono moo tax mu defañ jeexit ci moom mu yori fital ndax boobu ñu ba muy gën a jamono ca bis bi ñu ngi dégg fitalee tàkk ca Bawos Kuto moo tax ñu rawale leen dem yóbbu ko Gàmbi fa lañ ko ngéntee boo demee boo demee Fuuta armeel ya ñuy wax armeeli kobiloo maam Njaga Sekk moom fa lañ ko denc téeméeri wàllu yoo fa tëdd moom moo jur Ndumbe Sekk Matar Ndumbe Diop ma doo faa xuja Njaga Isa Faat Isa ma waajur mu jigéen mhm. nga dem ca diggante Mauritanie ak Sénégal Ceerno Ibrahima Sow turandoom fa lañ ko denc dëkk bu ñuy wax Magaama ca frontière ba mhm. maxaama la eh, sunu mbokki pël yi wax Magaama mhm. foofu lañ ko denc wax naa la ko léegi ci waalo nga dem Jolof maama maam maaram fa la jóge woon ñëw Mbàkke Bawol nga dem kokki jër mu jigéen fu la cosaanoo kon maam Cerno bokk ci giir gi ñuy wax jaafuñ tamit mhm. mook maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk maam mhm. mook sëñ Tuubaa ñoo bokk maam mook Alaaji Malik ñoo bokk maam mhm. mook sëñ Abdourahmane Lo ñoo bokk maam mook sëñ Muusaa ak sëñ Baara ñoo bokk maam ñoom ñëpp seen bëggee ca jëm mooy mooy seenu maam kon maam Cerno réew mi la bokk bokkal rawatina ku fi baax waaye yàlla da ko defal lañ jukkay boppam ndax bis bi mu gënee jamono yor yoru alxames la gën a jamono mi ngi fekk sëñ Tuubaa di jàngal xam tollu ci wàqi Haaruna huwa afsahu lisaanan mm-hmm. mooy yonent yàlla Moussa moo demandoon yàlla ni ko dama bëgg sama euh, frère bii di Haaruna nga def ko yonent ndax sama làmmiñ mu man di ma jottalil mm-hmm. yàlla nangul ko ko mm-hmm. léegi nag borom daaru mu ti frère u sëriñ Tuubaa la bi sëñ Tuubaa jàng alxuraan tollu foofu nag ci la bàyyi ñu fekk fi mu toog mu ne ko santal yàlla Ahmadu sa ñaan nga nangu na kii gën a jamono di dina la dimbali ci sab liggéey waaye def taxaw seetlu sëñ Tuubaa moom ban année ñaan yàlla rakk ju baax ju ko jàppale ci liggéeyam ndax fukki at la ko mage bàyyam fekk ko fi mu toog ni ko sa ñaan nga nangu na am nga ko la jàppale sëñ Tuubaa moo bind toqantal gi ci ko am fukki at ba pare foofu dafay jafe ay teggin maanaam bu bindee toqantal gi mënoon na koo jaar ci néeg bi dugg ni jox ko waajuru maam Ceerno muy soxna Faat Isa waaye dafa xar sàkket bi muy permis daa dafay jaarale téere bi ni ko jàppal mu jàpp ndax nee na sama néegu néeg bi sama néegu sama néegu sama soxna waajur ma fi nekk waruma fee dugg mm-hmm. loolu ay teggin la mu jox ko mais ci guddi gi manam ba uskuta ñong ngi koy e taal fital yaangi tak tàkk maam Ceerno faw sëñ Tuubaa léemu ko ndax day doora gane jamono neena seigne musa Musaa Ka ci guddig seigne touba mo moo neeg bi jangal ko musabahatul mundiyat lolu jiyaat ñaari sar la neena na ndax cëri doomi adama juróom-ñaari ciir la neena bisub kero lako seigne touba sangé motax mustama ci dundam allah ku am fukki at di tere nit moy yalla kon yow ko yar ba ma don magum jëm faaw mu am ngërëmul yalla mm-hmm. ak yow yaay kan sax ak yaay kan borom daru tam kenn la bokal ndey mm-hmm. muy seigne moudou fati ci gor mm-hmm mom bayu fi dom mhm. domi seigne Mor sadil la la mam maam na ñaar la bokkal nday ak bay soxna Aminta Mbakke ak soxna Fat bint soxna Aminta Mbakke seigne sëñ Abdu Raxmaan Lo lañ ko joxon mo mhm. jur soxna Aminta Lo ñu jox ko seigne munu saa muy wajur seigne Mbakke Madina mhm. moo tax sëñ Abdu daan wax seigne Madina ne ko yow de sa mam yi la bolel ma ci gëna a yaafus ci ab kamil lay nafi la ndax mok ko sëñ ko ak maam Cerno ki ci dess muy soxna Fat Bintu seigne Mandumbe la lako joxone moy wajur seigne Muru xabbal mu sëñ Mandumbe mm-hmm. kon borom daaru mom mbokum yoonu murid la mm-hmm. alxuraan nak mi ngi ko jangé ci ndax bari ñi gi la dala jang mm-hmm. bar ñi gi ci tëngeej mok maam cheikhanta baye ma len fi yabal ñu ñew ci kat bu mag bu ñu wax serigne ñang mu len dalal jang waye at rek lañ fi def di eh, di ñibbi baye bu guddi maam seexanta ni ko nañ dem ndax ñu baye Ahmadu ginaaw muy seigne touba ta bobu ay ndaw la waaye teel gun ko teel tax señ tuwaa koo xam bëgg ko lo do doon tu tànk boo ko xamee ko bëgg mhm. waaw motax ci guddi gi ñu top guddi gi daal dem biñ ñëwaaté señ tuba maam maam ceernoo ko jàngal alcorane ba mokkal lool nak bari lu foko dégg diw señ tuba ko jangal ba mokkal mhm. kon jang mom dina euh ba mokk alcorane maam Cheikh Anta mu jox ko señ Mor yassine si la ca cumb señ mhm. sëñ Mor Seck di ko jàngal waaye gu señ tuba takko maam maam ceernoo ndax defar dafa laaj euh neeg wajurum wu jigen sax daaw fa dugg te ñoo bokk génn kër na sëñ Tuubaa mos na ko ni jigéen buñ ni ko góor bu ñu koy tege bu ñu koy teree néegub jigéen néeg ndeyam a tax waaye xanaa beneen néeg taxut waaw bu fi dugg di ko jàngal fexe ba mën alxuraan mm-hmm. fukki at ak juróom benn ci la ci la alxuraanam noppi mm-hmm. sëñ Tuubaa dalal ko njàngum xam-xam waaye njàngum alxuraan mu mokk nag mokk lool mu dalal ko njàngum xam-xam jox ko maam Xaadima Jaxate Kala mm-hmm. moo ko jàngal naxu ak xaroot ci ndigalu seigne touba lako defé nak hmm ginaaw bi mu jox ko seigne Mor barama Jaxate seigne Mor barama Jaxate moko moko jangal ko seikh Khalil, muy tere khalil bobu waaye borom borom daaru bamuy dem daf ko yutali ay bayit ñu ko hala hazal waqti sayyid jilihi salamun faridun la yabara bi mislihi mhm. may nuyu serunu jamono ji tay sangu ak masam nuyoo nuyoo nuyoo bi nga nuyoo bu ñak morom nak la lay nuyu ko salamun kama miski wa wardin wa anbari ala cheikh ibrahim misbah alihi moy mhm. lampe sen wa keur man ko nuyu nuyu bu mel ni ko lañ laj ko ni misk ak xanbar di dem di jang xam-xam nak di talifal ka ngay fekki kon yakarna man nga waye bëgg lu barke la tax nga difa dem te seigne touba téere bu mu ko musan jangal ne da koy jangal genn gi ni ko li ci dess moy mbokk dimbale nako mbokam mbokkam mm-hmm. te da koy mokal mokal go xamni day melni seigne dog ko jangal mm-hmm. lol nak ci ak mbaxuk seigne bi la ak karama yu ko yalla jox mm-hmm. waaye bimu mu nak seigne Mor Baraama tax daf ko tontu mom tamit dañ ko ni dañ ko billaahi su la wala sama loxo lal la waat na ci yalla li nga bëgg du mokam ba bamay faatu <laughs> nak ko yalla baxna ba defuma lako wallahi law kuntu salat min xudoduku mooy ma teemaa nit bi maxsudi waaw digen kon moo tax kon gan ak jamono borom daaro ngi non seigne sayu akuk euh, cosaanam tosan tosanam mm-hmm. fim jange alxuraanam ak xam-xamam. tabarkalla mm-hmm. barakallah seigne sayu sak Seck euh jangat bi leer na lool ku deg waxtani sax xamne ne euh, temps bunyi bunyi calculer baye nga ko xel waaye loolu rek manon manon nañ ci waxtan danaka ay waxtu waxtu waxtu ndax mm-hmm. euh, du jeex. mu mel ni borom daaru ni nga fi nga wax ne fi la jaar ak cosaanam feeñ na ci ak dundam mhm. ci fit ci ngor ci jom ci jikko yu bare bare yoo xam ne eh, yàlla jagleeloon na ko ko moom muy ak jagleem ak aku mbaaxam te li ñuy wax ne suuf su baax mooy génne meññin bu baax di Alxuraan di wax suuf su baax mooy génne meññin wu baax ci suuf su baax lay jógee mhm. loolu feeñ na lool ci dunduk borom daaru eh, mu siiwit ci ne bi sëriñ bi dem ci géej gi ci 1895 eh, bàyyi ko Touba ku ne xam na ne jamono booba euh, tubaab yi yëlefoon nañ nit ñi nit ñi ragal leen ñu sonaloon leen daal leen daal leen nattu ci lu baree baree bari ba jàpp sëriñ bi yóbbu kon kooku ki sëñ Tuubaa bàyyi ginnaawam ak ak ak ban taxawaay la war a am te nit xam naa la ciy jiitu ci taxawaay bi sax fit moom war na ko bari la lool mhm. ndax jamono boobu wuti sëñ Tuubaa yombut kon bi ko sëñ Tuubaa bàyyee njaboot gi ginnaaw bi sëriñ bi demee ci géej gi ban taxawaay la amoon ci ginnaaw sëñ Tuubaa mooy ñaareelu laaj bisimilah. jërëjëf ban taxawaay la bi sëñ Tuubaa demee géej muy taxawaay bi ko Sëriñ Tuubaa yare woon wax naa la léegi moo tax ak moom yar ko. Mhm. te nit fi ne nii mënut a tari lu dul li nga def ci moom. Mhm. Mhm. bi Sëriñ tubaa demee géej fu ne dëkk na fa mbas mu rëy am ci senegal ba lu toll juróom-ñetti taalibe faatu ca ba doomi Sëriñ tubaa Sëriñ Mahamadou Yadaal yi ca la bokk. sëñ baara tawat ca sëñ Fallu si sëñ Musaa mu ñaan yàlla sunu borom sëñ Musaa Ka mi ngi koy mi ngi koy martial ba wax ni sax keroog la Musaa jooy. ni bu yalla nar see jël kenn ci njabot gi na na ko jotee sama waajur wu ak sama ñaari dom yi muy seigne Abdou Khoudous ak ak seigne seigne seigne seigne cheikh Seexawa Balla ak seigne Mudawa Balla ak seigne Mud Abib kon lolu ak mbax la waye seigne Tuubaa la takkon ak mom mm-hmm. ndax be seigne Moron sel dem di gané di seigne Pir seigne Demba Fall ci Pir kérok ñom ñet ñu and waaye sëñ Tuubaa daa xool garab gu baax guñ mën a toog mu ne ko nañ dem fee cernu di ko jàngal xam-xam moo tax taxoo googu sëñ Tuubaa taxoo nag moom moo tax mu mën a muñ bari nag amul fit nag lool ndax neexul sëñ Tuubaa dem bàyyi la fi ñu baree baree baree bari bëgg di la gàllankoor ndax fi mu mhm. dëkkoon da doon tàkk lu bari mhm. am na ku ñuy wax sëñ ma soogi ma nga dëkkoon saate mhm. sëñ mu Ka nee na keroog fa la yónnee ni ko daa bëgg nga defal ma listixaar ndax fi ma dëkk mu ne ko demal tuxu fii nga dëkk koy jinne fi dëkk maam Cerno fi la jóge daal dem da taxu guy ngura mm. kon jafe-jafe mit la ko señ bi bayé mm-hmm. waaye nak formation ba am solo bi señ Tuubaa def ci mom moy mm-hmm. tax mo meuna moy tax bu ko fi bayé mu meuna régler li ko sëñ Tuubaa bàyyeel ndax sëñ da na and ak mom lu bari ànd nak mom ndar ci mam askamara di fa wuti werd ak barab yi bare bare bare ànd nañ fa ñom ñaar daw ñu tàqali mm-hmm. taxaway bu reeb am nag moy fexena ba bi señ Tuubaa démé geej doomi señ bi ñepp man alcorane avant mo ñew ndax tukki lu metti la faw nga tumuranke mm-hmm. mu yar njaboot gi nag ndax sunu borom dafa waxoon ngeen gi mi def ni ko wayafalul ci biir jullit ñi ñi la topp wax fit janaaka li ma ni tabaaka minal na mm-hmm. waxaat ko ni ko wala tusaahir xadaka li naasi wala tamsi fi lardi mm-hmm. bul réeréy lu mukk ci nit ñi daal di koy waxaat ni ko walaw kunta fastan xal bi lan faddoo min awlika soo doonoon ku maanaam ku naqari deret kon ñii ñëw fi yow ñëpp danañ dañ la fi dem doo gis kenn lu mel noonu nag sëñ Tuubaa dafa ko def ci maam Cerno tàggat gum ko tàggat moo tax bi sëñ tubaa demee géej mag ñi toppoon sëñ Tuubaa mhm. ñëw wut si ko bu fekkoon sëñ Tuubaa defu ci moom boobu kon du ko ñëw ba mhm. ndax bari na ci mag ñoo xam ni seen moom lañ ko doon jox ndax borom daa nekkoon daa nekkoon koo xam ni li sëñ Tuubaa tax na mu doon jëfandikoo la ko sëñ Tuubaa waxoon dañu koon rumit tawaaduxa li kulli muslimin tanju bilaa tara bilaa taraddudin min zulami sëñ Tuubaa ko ko waxoon ne ko ab julit julit mooy mbokkam ken waru wax lu dul dëgg kenn waru koo seetaan te lepp julit dafa lepp julit dafa aram ci julit ab deram ak alalam ak deretam lepp dafa aram ci julit ak ragal yalla yoyu seigne touba waxa nok ko niko nang ko baye xel bu bi seigne touba demé geej mu fexé ba defar digënté bi jubboog mag ñepp ndax nit bu la baye dara faaw sam ko rek mo la war mhm. waye ñepp la amulon ak seigne mo ndumbe bu liggéey day ñew jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñu bare bare bare ngir muy dundal njabootu seigne touba gi fexé ba jangal leen ba am xam-xam ba pare mu yar leen ni ko seigne bëgge mu defé mu defé ko euh barakallah dere jeuf Cheikh euh, Saliou sek alxuraan ci tontu yu leer yoyu kon defé na né mom ak njàmbaaram ak fitam foko nat wessu nako na ko ndax ni ma ko waxee rek bi seigne bi démé ci geej gi jël mbolém dongay ak njabot gu sew geeg ñepp deng ko ko taxaway bam ci am kooku kon ay jikkom dana waradon don jikko yu yu yu yu am solo yo xamne dana don jikko yu rafet comme jikko yi sun borom tagge yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam muy jikko ju rafet. kon lan muy man liyan façon jikko le borom daaru moxtu yoron ba meuna tenir lol lepp ak euh, aw melom ak taxawayam ci islam ci bopam ndax borom daaru njambar gi ak fit yep boko takke ci jaamu ga yalla danaka njambar gi ak fit wa ndax jaamu ga yalla gu tar jërëjëf waaw moy lima wax ni seigne touba dañ ko rumi tawaaw doxal li kulli muslimin tan jubila taraddud min sulami manam na nga fexe ba jul bu nek na nga and ak mom ci toroxlu kon amul sikini de da nga mucc ci len ci lëndëm lëndëm yi moo dawul teju foko fek ci bit lay tok nit ñi wër ko mbolé mag ñi ko topan ñi topan seigne touba ñepp nangul ko mom nak aw melom mom borom daru da njooloon dafa dafa dafa bok ci melo mhm. waaye ciri dafa jotone lool ba tax na boo toogam da ngay foog ni moo la sut te fekk ndaama la loolaa waral ñu daa ko woowee ndaamal daaru ku silwiise la woon tamit te noppi euh, ba pare tabe bari bariwul ci wax loolu am na li waxkat lu baax yi di wax naan bu wax ji néewee yow la bu jëf ji réyee yow euh, loolu moo ko daloon ndax avant benn pël bu romb mbooloo ñu toog di waxtaan mu ni ci lu ngeen di waxtaan ñu ne ko waxi ceerno mu ne ah est-ce que dëgg la man de sama bàyyi nee na ma ceerno bariwuti wax mm-hmm. dégg nga loolu ba pare daana toog ci pénc mi lu yàgg mhm. toogaay bu yàgg la ñeme woon ay doomam tamit dañu wax ni sëñ dara Mbàkke moo ko ci gën a nuru ci jëmm mhm. bu dee kàddu sëriñ Seex Xadi Mbàkke moo ko gën a nuru ci jëmm moom noonu la ko yàlla bind woon mhm. taxawaayam ci lislaam tamit mu doon taxawaay boo xam ni lii yàlla wax ni axul al muslimi axul muslimi laa yaxuunuhu wala yakdibuhu wala yaqdulhu kulal muslimi alal muslimi xaraamun عرضه وماله وذمه والتقوى ها هنا بحسب امر من شر ان ينخر اخاه المسلم رواه الترمذي موي حديث بوير بو خامني حديث القران غيناو القران حديث توب واي افاني اب جوليت جوليت موي مبوكم وركو واخ لول دغ وركو وار واخ تاميت ني وركو ياق تاميت على لام اك دراتام اك راغال يالا نك فوفو لا نيك راغال يالا تي خول لاي نيك كون موي خيتي bu mën a doon rek nee na ak mbon mi ngi yem ci nit xeeb bokkum jullitam fi neen fi la ak mbon yem mhm. maam Ceroon nag nii la meloon dawul xeeb kenn ku ñëw fi moom rek mu def la ni boppam ba tax na Sëriñ mhm. ngir mu koy joxe ba fi mu ne boo demee daarul moxti sax ci ak njabootam am na ñu yor wirdu yi di ko joxe am na ñu yor wirdu saa seli yu mhm. moom noonu la ko yàlla binde woon ci rafetal digganteem ak njaboot yi ak meloom woowu euh, jërëjëf mu mel ne tontu boobu it am na solo boo gisee dégg naa ko koy way di wax ne moo bari diine bari ngor mhm. bari xam-xam te mun tawar mhm. bi dogal xam li ko war wuute wala ku ñun kon jikko ja jikko ja rafet ga dem na dem na dem na dayo mu mel ne sëriñ bi it ginnaaw bi ñu ko tarbiya ba pare tofaloon na ko mbooloo moom it mu leen di tarbiya mhm. kon ban xeetu tarbiya la daa tarbiya ñooñam ñooñi ak relation bi nga xam ne amoon na ko doomi Sëriñ tubaay yi ak ak ak ak ak rakk yeeg mag ñi waaw xam nga tarbiya du dara du dara lu dul fóot xol nit ki ba ba mu denc gàkk-gàkk yi. Mm-hmm. ak yenn xeeti ayib yi. Mm-hmm. mooy tax sa xol mën a xajoo ñëpp. Mm-hmm. borom daru nag fi ko sëñ Tuubaa jaarale rek la jaarale ñi ko sëñ Tuubaa ndax sëñ Saliou Mbacke nee na. Serigne Touba dafa am comme sa ci moom ni ko damaa bëgg nga defar ma. Serigne tubaa ni ko demal ci bàll fal yi defar naa ko. defar taxoo la laaj te amatuma jot. loolu nag da ngeen ci li ngeen ci dégg mooy Serigne Touba nekk la mu bëggoon mooy ku mu defar ba noppi ngay defaraate. moo tax daana yebal ay murit fa maam Cheikh Anta mhm. daanu ko yebal fa sëñ Mamour Diarra mhm. daanu ko yebal fa maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. daanu ko yebal fa maam Thierno nee na sëriñ ma eh, ak nee na si sëñ ma jëmb silla la fa sëñ Tuubaa daan si bu fekkee ceddo yi Ibrahima Fall fa leen daan fa leen daan bu dee borom daaru moxti ña ko sëñ Tuubaa joxoon tamit fokk sëñ Tuubaa jaare la rek la leen jaarale mm-hmm. mu doon ndax sëñ Bassirou Anta Niang Mbacke doomam nee na mooy mm-hmm. xalifaam yàlla na ko fi yàlla yàggal nee na sëñ Pata Sall mi jiite woon tool ya mm-hmm. nee na ko ay toni toñ lañ daan bay te bu nor te bu ñoree nee na borom daaru du ci lekk ak njabootam du ci lekk ñun dong yi ko doon bay duñ ci lekk ca ñetti téeméer dong la woon nee na lépp da ko yut Serigne Touba te nee na waxtu julli bu jotee nee na bala ñoo julli dañuy julli ji ba bala ñoo julli dañuy jàpp ba set nee na bu timis maasee ñu ñuy jàng xasaayid yi di ko yëkkati ba fajar mhm. bu fajar jotee mhm. ñu dem tool doon ñett téeméer dong mhm. neen na am na ci taalibeem bu tudd Serigne Mor Anta Silla dafa amoon ay góom ba tax na moom tiim la daan def boroom daaru gis ko ni ko gis ko muy tiim da ko laaj ni ko lu waral sa tiim bi mu ni ko mu leeral ko ko ni ko dama am ay nangam ay góom wala ay gaañu gaañu ba tax muy tiim mais borom daaru ni ko bu ko defee ti loolu pexem saytaane la gis nga googu ragal yàlla ndax mm, moom dafa sàmmoon mës nay dem ci jàkk ji rek am ko ko dokaal ni ko dama laa soxla mu ni ko sama borom ma soxla wan ko ginnaaw di dem moo tax sariya ak xaqiqa da ko doon dund mhm. te loolu yarub sëñ Tuubaa la mhm. dañu ko loolu pexam setaan la ca gis nga loolu mhm. loolu sax maanaam diine dala koo may waaye xoolal yi nga xam diine da ko oyofal ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngànt borom daaru maanaam ak sàmmam ak mën a moytoom moo tax maanaam mu wax leen loolu gisoo ci leen ñaari yoon la mas a tuub tiim ah. bi bi ñuy si sëñ Masamba ah, ak bi mu sanc koso ca ba mu amee ndox daf koo fay da koo ah. léegi nag loolu nag ci la yar ak njabootam mhm. ni mu doon tërbiyaa doomi jàmbur yi ndee doon tërbiyaa ak njabootam ndax mhm. sëñ bas sëñ mi nee na am na ci xam nga mooy njëkk bind ci maam Cerno mhm. nee na am na taalibeem bu ab doomam bu ju ko tàggoon ni ko damay génn seeti taalibe yi ne borom daru daf ko ni ko euh, boo demee bu laaj kenn dara ni ko xanaa xamoo loo laaj nit ba mu jox la ko ba léegi di ko ko fay te bu baax du yomb moo tax boo demee bul laaj baal ban jox la nga door a jël mm-hmm. noonu la meloon moom moo tax digganteem ak doomi Serigne Touba yi tamit mm-hmm. lépp rafet mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, kon relation boobu nga xam ne amoon na ko ak doomi doomi Serigne Touba ak mag ñi kon xam naa mel na ne waxtu wi la ci des bariwut ñu ngi may wax ne juróom mi minute la léegi sañcub Daarul Muxti ku ne xam ne ne Serigne Touba dadaa jël dadaa jël ku ñëpp soxlawut defar ko ba ñëpp soxla ko mu delloo ko ay mbokkam kon ginnaaw bi nga xamante si ni sëñ bi defar na ko ba mu jekk jox ko ndigal mu sanc daarul moxti eh, sanciin wa ak ak ak ak lu waraloon sanciin wa eh, ak ak ak ak ak eh, kañ la woon ak bi muy wàcc liggéey nga tënk loolu ci ci minute yu gàtt incha allah. sëñ Saliou jërëjëf. Mhm. borom daarul moxti bi muy sanc daarul moxti mi ngi jugee mhm. Mbàkke Kajoor la ko fekk. Mhm. Mbàkke Kajoor la ko fekk. sëñ Tuubaa woolu ko. dafa bind lettre bokk jox ko sëñ Amsatu Jaxate wax na ko ci lettre ba ni ko wa baxdal basmalati wa maa yaliqu min attaxiyaati almubashiraati mhm. faxat usin làkk fii binaai tilka daari wa fi lxafri mhm. wasmoha daarul muxti wa aleykum salaam mhm. yubashirukum xaysu kuntum daal di koy digal mu jóge Mbàkke Kajoor fanaan si daaru muxti guddig dibéer juróom ñetti fan la ci rakkaati gàmm sëñ Balla Gaye nee na booba ñaari téeméer dong lan woon ak ñaar fukk deux cent vingt personnes toll ci seen fanweeri at nee na booba ab àll la àll bi ko wër nag doon dara nekku fa. nee na borom daru gor ko lu tolloog li tàmbalee yabal ba daaru daaru manaan. 40 kilomètres. mu ànd ak ay do ay dongam gor ko. mu doon tamit ay ay ay ay ay def ko ay daara fu ne mu yabal fa doomam bi muy génn àddina tamit moom yàlla dimbali na ko ba. weer wi mu fi ñëwee woon. la génnaat àddina. sax baan la fi ñëwee woon yor yoru alxemes. waaye sax baan gii ci la tëdd tawat. te ñaar fukki fan yàgg juróom-ñaar ci la génn àddina mm-hmm. keroog bi mu génne àddina Cheikh Issa Diène teew na fa mm-hmm. bokk na ci ñu ko doon waajal ak sëñ Mut Jaw Paxa mm-hmm. ñi ko doon waajal la bokk ak sëriñ euh, Paate Sàll ñu ko doon waajal la bokk biñ waree biñ ko waree jullee nag doom suñu seexoo bala moo ko jullee mhm. foofu nag dafa am jàngat bu fi am mhm. mooy ndekke doom boo ko amee mhm. muy ab jullit li nga war def mooy jàngal ko ba mu mën alxuraan kon ragaloon yàlla sax suñu seexoo balla yàlla lool moo moo waral ñëpp teew mu sañ-sañu mën a jullee baayam kon foofu li nga fi jàngat mooy nekk doom dañu ko war a yar dañu ko war a jàngal def comme nawle teg ci waaw mooy ci diine bu fekkoon da ko bàyyi mu mu muy wëreelu rek. wala mu dugal ko ci ay nasaraan. du ko jullee du ko mën a jullee. waaye bi mu génnee àddina moom moo taxaw jullee ko. ba pare ñëpp nangul ko ndax aragal yàlla. ak ragal yàlla moom si moom si njaxaw bala waaw. kon loolu doy na sëkk ci firnde. mu doon koo xam itam. dundam gépp suñu tubaab la ko joxoon. dundam gépp daana wax ni. nit ñi nragale ak ñàkk. bu ñu ko ragaloon yàlla seen lépp jàkk. Ah, nit ñi bu ñuy ñàkk di jàmbat nee na bu ñu ragal noonu yàlla dootuñu jeexal dara mhm. ku bari woon ay xekkama la tamit mhm. ay nit mosuñu toog ci watam di wax ni mhm. lan mooy ak talibé nee am ku ne ab talibé mooy loolu sëriñ bi digal nga def ko nee na keroog daa mer ba kanam gi sensé ni bu leen ko waxati ab talibé mooy koo xam ni bu ko sëriñ bi digalee day xool ba xam ndax dëppoo ak sunna bu ko dëppoo mu def ko bu ko dëppoowul nee na mu wax la yonent bi defoon kenn du jëfee ndigali nit di bàyyi ndigalu yàlla mhm, waaw kon moo noonu la meloon loolu nag yar bu ko sëñ tubaa yar la ak formation sëñ tubaa daal moo fort waaw mhm. kon comme waxtu yi dafa gàtt waaye maam Cerno moom mhm. ak la noo baax a baax nag mboolem ku fi teew rek nga am ngërëmal sëñ bi amiin sëñ Saliou noo ngi lay ziar bu baax a baax ñu satub sëriñ tubaa nga waaye ci lii rek lañ la xam waaw mënoon ngaa nekk ci leneen waaye moom bañ la xamee ba Mm-hmm. Eh, xam la sëriñ bi la te loolu du tey booba ñoo ngi daaru mot di jàng xam-xam da koy xamle fu baree bari yàlla yàlla sàmm la waaye di nuyu baax a baax a baax mm-hmm. sëriñ Aline Mbaye mm-hmm. léegi rek bi muy ñëw ci sëñ Medoune ci ji mu ko defal mel na ñun nga ko defal yàlla yàlla fay la sëñ Saliou ñoo ngi lay siyaar baax di nuyu sëñ Aboom ñoo ngi siyaar ñëpp di nuyu caméraman yi ñëpp rek yàlla yàlla defal leen jàmm ak tawfeex waaleykum salaam wa rahmatullah Saliou Seck alxuraan ci waxtaan wu tedd wu am solo wu rafet wi ci xamle gi borom Daaru Muxti ci jikkoom ak ab taxawaayam ak ñàkk gi masa musta taqaliko sëñ tubaa sëñ tubaa nee na sama waxtu ndawam ba a maga musuñoo taqaliko kon daal euh, loolu la ñu ngi ciy nuyu bu baax nag taalibi borom daaru Cheikh Omar Bamba Diop mi nga xam ne euh, dégg nga fu fu mu toog xamal xamle fa ne xam na jot na kon sëñ Saliou Seck Arfane tey xamle na Thierno di sant bu baax a baax nag euh, ki nga xam ne moo ñu ñawal laxasaay gii ñu laxasaayoo muy bàcc Sarr Borode la lañ koy wax ak soxna Ndumbe bi nga xam ne moo fàggu tisi bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. moo jiitu fandar doon faa gaynde gu nga maam Ceerno borom daaru jàmbaara